à Saint-Louis. Quand il y a le festival de jazz, les hôtels sont pleins, les restaurants travaillent, les Saint-Louisiens viennent. Et c'est quelque chose qu'on sous-estime, mais qui permet, qui permet, au territoire de, de vivre. Quand, par exemple, c'est la prière des Nyari Raka, c'est des milliers de Sénégalais qui convergent vers Saint-Louis. La mairie de Dakar, elle, elle, a le budget pour organiser chaque année le Rubidon ou autre chose, faire venir des artistes, et ainsi de suite. Aujourd'hui, dans nos territoires qui sont en difficulté économique, on a besoin de cette activité-là. Par exemple, vous prenez un festival comme le festival des Côtes de, de, le Coris, mais ça attire des touristes à plus finir. Et je pense que ce serait important de refaire ce budget-là pour que les gens puissent animer les territoires et les développer. Et je termine, Monsieur le ministre, par, euh, par, euh, par l'aéroport de Saint-Louis, qui vient de se terminer. quand Abdou a, a, a créé un ministère du Tourisme et des Transports aériens, et d'ailleurs qui a été confié à l'époque à un Saint-Louisien, Tidiane Silla, Il avait en fond de réflexion Saint-Louis. À l'époque, le charter venait à Saint-Louis, saint-louisien parce qu'après, Ousmane Massalindia est venu, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, Saint-Louis a retrouvé son aéroport. Est-ce qu'on peut avoir un vol touristique pour permettre de redévelopper l'activité touristique Puisqu'avec la côtière qui va arriver, euh, Dakar-Saint-Louis qui va passer au niveau de la côte, aujourd'hui, on transpercera plus pour aller vers Lugo, Québec, descendre. par la côte Là-bas, c'est la zone de Gandiol, c'est une zone touristique qui va descendre jusqu'au jusqu de, de Lompoul. Donc requalifie carrément économiquement le territoire. il serait intéressant que dans les idées qu'on a, c'est la côtière extraordinaire, l'aéroport extraordinaire, et enfin le, le, gaz qui sera à Saint-Louis. Donc ce serait intéressant que qu'on puisse travailler à donner un contenu à l'aéroport de Saint-Louis pour que ce soit le déclic pour faire repartir saint dernier orateur Abdou Mbow Merci beaucoup euh, euh la présidente monsieur le ministre maa ngi leen di nuyu di nuyu bu baax seen collaborateurs yi di nuyu sama collègue yi madame la président je pense que du ma ci sori parce que pratiquement li nga xam ne mooy budget bi lu ci bari wax nañ ko je pense que monsieur le ministre je voudrais vous féliciter vous encourager parce que gis nañ ne par exemple tourisme bi nga nekkee ci bopp bi ba léegi yaa ngi ci def lu am solo et gis nañ monsieur le ministre des finances que le budget c'est pratiquement huit milliards six cent un peu de huit milliards cinq cent avec une hausse de un peu plus de cent millions et je pense que ça c'est important et comme ni ma ko waxee woon ci Euh, secteur des mines et géologie secteur privé dafa am lu am solo loo xamante nii daf koy def ci ministre maintenant je pense que l'offre touristique qui est de six milliards cinq je pense que loolu aussi war nañ ci am war nañ ci am loo xamante ne nii accompagnement lay doon boo xamante nii le ministre des finances dina ko def par rapport à la promotion de la destination Sénégal wax nañ ko sànq le ministre le président Seydou Diouf l'a dit je pense que ASPT war nañu mën a gën a accompagner ko et je de l'occasion pour saluer mon ami et frère euh, Pape Mahaw Diouf di ko encouragé ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni mi ngi koy def di nuyu bu baax Assou di nuyu Thiaye Diaby et tous vos collaborateurs parce que je peux en citer li ci des nag mooy je pense qu'on aura l'occasion de revenir en détail sur énormément de choses que vous êtes en train de faire parce que certains de mes collègues l'ont dit mais je pense que comme ni nga ko waxee quand vous êtes là Koura l'a dit tout à l'heure c'est normal que certaines personnes s'agitent c'est normal que certains esprits se euh, réchauffe parce que c'est normal parce que nag aussi am na loo xamante nii nit mënoo koo dompat ba pare du yuuxu loolu mënul nekk te àdduna bii nag je pense que su ma déggee sànq ñuy wax naan ñii xamuñu budget ñii def ñuy nangam nangam parce que dañ ne hôpital souvent buy xas dispensaire ci bali malade loolu war nañ jaaxal nit et je pense que sànq ba léegi man xamuma woon ne mon très cher ami de Sédhiou dafay daal di seetaan au théâtre ce soir parce que fii muy wax gars yi di ree parce que au théâtre ce soir ñi nga xamante nii daan nañ seetaan film film ak théâtre tubaab yi xam nañ nañ la donc je pense que lui moom moo war a xoolaat boppam parce que sànq dafa taxaw fii rek nit ñi commencé di xàqataay parce que vous savez yéen a ngi fàttaliku au théâtre ce soir nit ñi daan reetaane bu rido yi tàccoo donc je pense que monsieur le ministre en tout cas on vous encourage on vous félicite on sait que vous êtes un homme courageux et vous êtes un de conviction li ci des nag mooy ay xam nga diggante ci suba ak léegi man li ci soppeeku moo a jaaxal parce que tout à l'heure ci suba dégg nañ un de nos collègues wooy diw mooy suñu candidat diw mooy suñu candidat ngoon gi sànq ñu ñëw mu dégg diw mooy suñu candidat diw mooy suñu candidat moi je pense boo amul candidat da nga koy wuti nous de toutes les manières ñi ngi ci liggéey président Macky Sall li mu wax dafa leer nañ xam nga barki démb tey suba am na ku taxu fii un de mes collègues naan woy waa ji perte na xelam di wax li mu leen wax dafa leer dafa leen wax ne gis nga réew mi tant qu'il est à la tête de ce pays-là kenn du mettre sens dessus sens dessus bi et loolu je pense que du ay menace du leneen parce que bërki moo Ndiaye dégg nga li ñu fi wax ñu ne woy euh, le 17 xaw ma la ban jour la xamatuma sax ban jour la ñu ne ils vont demander les cinq départements de sortie kan moo génn kenn kenn xam nga ah léegi xam nga wax ne leneen xeexatu léegi nag xam nga boo nekkee mortal combat mortal combat gatsa gatsa tay bi kii ku ku dee sa ndey juraat après léegi ñu ne xeexatuñu maram ñi ay tàppet lañ bàyyi leen leen maa ngi leen di sant di leen gërëm La liste des orateurs est épuisée. Monsieur le ministre du Tourisme et des Loisirs, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci euh, Madame la Présidente, honorables députés, euh, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des honorables députés ici présents pour la sincérité du débat. Je pense que je ne vais pas durer. La majeure partie des députés qui sont intervenus l'ont fait en français, en, en, Wolof du moins. Mais je voulais tout juste euh, rappeler à l'honorable Samba Dang qui a, qui a posé des questions en français, lui rappeler que en réalité, c'est l'opposé qui s'est passé. Le tourisme n'est pas en crise. Au Sénégal, le tourisme n'est pas en crise. Au Sénégal, le tourisme fonctionne. Les hôtels sont remplis. Et nous n'avons pas de problème pour vendre notre destination. Je le dis de par la grâce de Dieu et de par notre propre stratégie. Au moment où je vous parle, le Sénégal est redevenu la destination favorite des Français. Au moment où je vous parle, il y a douze nationalités qui ne venaient pas au Sénégal qui commencent à venir au Sénégal ceci est possible de par notre stabilité les services que nous vendons et de par surtout la stratégie de conquête des parts de marché si ça si on a pu accéder à ce niveau de